Ah, Abdou Diouf borom états di préparer combat am ak Gris 2 Abdou Diouf maa nuyu. waaw maa ngi lay fay sama chéri waaw di kontaan si tey jël si bi nga jël si lees bon lii nag du émission suma émission bu lees de la mais lees day suma xarit di suma doomu ndey te ragal péete day xañ a wërsëg waaw lees dama naan ko sax moom yorul xolu mbër parce que chaque jour ay nitam sax xam nga day toog xam nga jàpp ñaamaram dama koy wax ni ko lees faaw ngay yëngu faaw ngay moom dafa dafa baax daal waaw dafa baax te vraiment dañ koy xamal ni ko moom pare na ñun ñu ngi entraîné suba ngoon dañ ko war a jox ci mbër yi. dañ ko war a jox ci mbër yi non xam nga lees maanaam moo ko booy bi nekk cees Modou Anta combat la lees ko raw ci làmb mais lo combat la. lees moo la ko digal non digaluma ko de mais damay wax rek. Eh. waaw Modou Modou Anta nañ ko jox lees. waaw boo lees du la tànc. non lees ak ñeneen Yékini Junior nañ ko jox lees. pourquoi ah Forza ñoo ñëpp nañ ko jox lees Forza may bëre moom dama ko raw. waaw mais moo ko am neex tamit. na leer. waaw lees daal mi ngi fi lees ñëpp la. Hmm. lees mi ngi pare du dëgg ñun gis nga saal nga ñu fekk nii fajar gi dañuy dem géej buñ fi ñëwee ngoon gi ñoo ngi fii buñ demul fii buñ nekk fii ñoo ngi saal. waaw lees de nañ ko jox combat loolu rek laa amoon lu may wax. waaw léegi yow kañ man ak yow nag nañ def lu doy waar ak wasaare ñu ngi waajal lu doy waar. ci fan yu néew. sooba yàlla jongante man ak sama chéri yi. jeex na lees gis ni Abdou Diouf wax na fi ay kàddu yu rafet donte guddul yéen ñaar seen relation nu mu demee. waaw am kii man ak moom suukar ak soow la rek ànd naan wala ànd tuuri. loolu yàlla moo koy def groupe boo gis dina am yàlla ñaa am ñii la si gën a boole ñu déggoo bu bu heure bu ñëwee balaa muy am jàmm mooy dafay ñëw si man bu amee combat balaa muy am jàmm amul lu muy am te du ma woo ma lii am sa wàll barki Seydina Mohamed billaahi wallaahi taalaahi amu nit bu boo xamul noo koy def rek nam la def moo tax ànd nañ voyager fu nekk di bokk benn néeg di def di defa ndoolu bari tey lu ma bëggul def bu ma ko def looyoo ma def ko par force moom mi lu ma buggul def su ma ko def looyoo mu def ko par force kon ñun ñaar am na leneen lu ñu yàlla boole lu bokk ak li nga xam ne moom mooy làmb loolu kóllëre la. mu jiima ko man it ma nekk si di ko sàmm nit ku baax la xolom dara nekku si kën gënu ko xol Abdou Diouf day maye ba ba leb di maye ji barki Seydina Mohamed day maye ba dem leb di maye ji du gàntal kenn lu mu lu mu am rek bokk na ko ak doomu aadama yi kon dañ koy ñaanal moom it yàlla dafa daf ko mu nekk milliardaire waaw di ko si ñaanal yàlla may ko ndam lu rëy hmm. waaw te am nañ si yaakaar bu baax a baax mu ngi entraîné gis nga làmb entraîné rek bu amul amul amul nax gis mag ñi ñoo ngi armée la tëdd ku mënatul da ngay bàyyi mais boo nekkee nit di entraîner xam am sa am train de vie bu baax kenn mënu la kenn ëpp la doole. te làmb mooy fi ngay bàyyee mooy quarante cinq ans te quarante cinq ans day fekk am na tuuti lu mu dese si doole. bu loolu weesoo ñoo ngi maa ngi nuyu Lomfor di ko nuyu bu baax di nuyu El Hadj xam nga di nuyuwaat ñoom lu Diouf ñëpp daal. maa ngi maa ngi santaat yàlla bu baax baax di nuyu Père Bal di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér bu baax baax baax a baax waaw encore une fois di nuyuwaat Pape Mama Fall Masser Fall Dieye Sène Modou Ngiraan moom it mu nekk exceptionnel kooku comme wàllu yu comme wàllu yu kooku moom comme wàllu yu rek yàlla na ko yàlla taxaw nu muy taxawoo doomu aada yi moom it xam nga géej waay dañu am li nga xam ne ñu bari amuñu ko mooy géej waay dañu bokk ndey bokk tey foofu sa loxo àggul sa morom fa loxo loxoom àggee rek mu jàppale sa te loolu moom mooy àdduna yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ yàlla defal jàmm defal ko bépp jullit bépp doomu aadama waaw di kontaan bu baax a baax jërëjëf